bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu yéen nga xam ne yéenay ànd ak ñun TV tabarakallahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkar leen yéen ñi nga xam ne da ngeen a ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné da ngeen di bës ci cloche bi maanaam fi ngeen loxo su ngeen bësee cloche bi noppi di def j'aime te bu leen nag commentaire yi ndax am na ci bu ko defee nu ànd ak yéen ci liggéey bi bu ko defee abonnement yi gën a bari àdduna si yëpp ànd ceeg ñun loolu mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen ca sàmm salaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min alcheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alsalaatu wassalaamu aleyka ya saydana yaa waliyallahi yaa nuura masaabi ataratillah mbokk yi di bàyyi xel Al Imran TV ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di tàmbale suñu nuyoo ci xalifab kër gi di oustaz Alioune di ko ñaanal suñu borom mottali yéenam ci diineeg lislaam ci noonu itam lañuy nuyoo mbooleem këru diine yi ci réew mi ak mbooleem këri aada yi ci nuyoo bi ñu ngi ciy jiital xalifatul am Serigne Mountakha Bachir ci noonu itam lañuy nuyoo xalifab général Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di wëlbatiku si suñu wet di nuyu suñu invité imaam imam asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa Seyda Kumba ñu ngi lay ziar ñu nit bu baax a baax a baax di am mbégte si dalal bi ñu dalal ci émission ëttu ndaw ñi. imam te nag ñu ngi war waxtaanee ci éducation éducation nag yaatu na suñu ne éducation te ñu ngi jël wàllub yar ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi xool comportement ndaw ñi mu ngi gën a changé te saa yu ñuy dem rek ñu gis leneen loo xamante ne gën a safaan mhm. ñu leen ci laaj imam lan mooy seen xalaat ci lan mooy yar macha allah eh, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah eh, ñun eh, suñuy gëstu ak suñuy tontu mënuñu ko génnee lu dul ci alquranul karim li tax ma wax loolu mooy mënuñoo am lu gën alquranul karim mm-hmm. donte que suñu waxee éducation gëstu nañ ko ci domaines yi bëree bari mm-hmm. ci li tubaab yi bind ci li scientifique yi bind ci li euh, boroom xam-xam yi bari bind mm-hmm. ci ay langues yi bëri te wuute waaye nag ba ñu tiimee alxuraan xam nañ ne ndekete yow éducation dëgg-dëgg baat bi alxuraan moom moo ko jekku dëgg-dëgg moo tax dañuy boole lépp loo xam ne dafay wax ci éducation maanaa ci yar moo xam yéeféer moo ko bind sax maanaam ñu considéré ne ki gëmul yàlla moo xam ki ko bind dafa gëm yàlla waaye liñ ci soxla daal moom mooy alxikmatu dalatul mumin anna wajadaha fa huwa xaq biha maanaam li ñuy wax euh, xikma sagesse wala li baax moom euh, alalu jullit ki la rek fu mu ko fekk rek daf koy jël daal di koy jëfandikoo kon moo tax dañ koy basé ci li nga xam ne moom mooy li borom subhaanahu wa taala wax waaye leeral yeeg commentaire yi yaatal yi incha allah mun nañ dugub bunt bu nekk. Mm-hmm. Euh, buñ ne éducation nag muy yar alquran mun naa ne téere la boo xam dafa wàcc pour defar doomu aadama éducation la moo tax boroom xam-xam dañuy wax ne alquranul karim kitaabu tarbiya wa tawjih bi yàlla waxee ni ne daalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin hudan maanaam tarbiya maanaam éducation la wa tawjih orientation la. suñ nee yar nag dafay di baat mm. bu am solo boo xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax mooy que ne société bu la gën a yaru gën a defaru rek moom moo lay gën a jëm kanam mm-hmm. euh, al tarbiya mooy li nga xam ne Nelson Mandela da daan wax ni mu ne the most powerful arm you you have walla you can change the world is education mm-hmm. ñuy wax education is your most powerful arm to change the world c'est-à-dire l'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde moo ngoog euh, arme bi nga xam ne wala ngànnaay bi ëpp gàtt kàttan bi gën a efficace pour soppi àddina bi ndax ñun ñëpp dañoo bëgg a soppeeku soppeeku ci fànn yépp nag mm-hmm. soppeeku ci ni ñuy doxalee maanaam suñu àddina da nga daan jël saret di daw di dem di kërti kërti tey ngay góorgóorlu changement am ngay jël oto nga dem bay jël hmm. avion te yeneen tam dina ñëw u Mbacké Sylla manqué nuyoo passage mi ngi jàng benn aaya sànq ne wa yaxluqu maa laa mun yàlla naan wal xayla wal dixaara wal xamiira li hmm. tarkabuha wa ziina hmm. wa yaxluqu maa laa taalamuun maanaam yàlla mberkeel la yeeg fas yeeg mbaam yi moom moo ko bind ngir mu nekk taar ak waruwaay waaye nag wa yaxluqu maa laa taalamuun jamono day dox oto ñëw fa eh, eh, avion ñëw jet privé ñëw noonu noonu jamono bu nekk na noonu la kon suñuy éducation moo xam wàllu doxalin la moo xam moyens yi ñu permettre ñu mën koo doxal tamit dafay chan dafay soxla ñaar yooyu yëpp. Mhm. kon éducation buñ ko waxee rek ñu ne ndaw ñi. Mhm. ndax ñoom ñooy moteuru société moo mhm. gis ñoom ñooy moteuru société moo tax euh, euh, nu mu turee sax émission bi bi nga ko tuddee jotaayu ndaw ñi wala ëttu ndaw ñi. dafa am solo. parce que su ñu waxee éducation rek xel mm-hmm. fi muy njëkk dem rek moom mooy mm-hmm. xale parce que xale mooy toll foo xam ne ndax donte ko sax nit fu mën a toll na mm-hmm. day mais ndaw ñi lañ ciy gën a jublu waa imam man de dama dégg nga tudd alxuraan ak yar man nag dama jàppoon ne maanaam yéen ñi di jàngale ci diine gi maanaam seen ab yar mooy jàpp xale bi dóor rek <laughs> ba yaramam dagg waaye naal dégg nañ ci yar yar yar boobu noonu mooy perfectionner la personne nga xamante ne bokkul tubaab bi nga xamante ne léeg-léeg maanaam dina la jàngal mais du la yar da lay élever nga xamante ne kon yar yu ute na kon nag seen nag déggin boobu war ngeen a fexe ba ñu ñu dégg ko ba nga xamante ñu daw ñi maanaam mm-hmm. dinañ ci mën a yaroo mm-hmm. mën cee defar société bi ndaxte lii fekk yaruñu dégg naa nga ko say kàddu ñu mën a dem ci kanam kon nag imam nan lañu war a yaree mm-hmm. wala kan moo war a yar waaw nit ñi war a yaree ak kan moo war a yar euh, responsable moo war a yar responsable nag mun na nekk ku nekk mun na nekk baay mun na nekk sëriñ mun na nekk mun na nekk nag niveau bu nekk mais ki ki nga xam ne moo ñuy jox programme yar nag suñu borom subhanahu wa mais bu ñu créé suñu bo maanaam suñu créé suñu bopp. Hmm. Euh, programme yar rek dañuy am échec dañuy échoué te looloo dal àddina tey jii yàlla moo bind nit xam ban catalogue la koy jox. maanaam hmm. pour mu mën a àgg fa mu war a àgg wala mel na mu war a mel. Hmm. Euh, li ma bëgg a wax foofu mooy euh, suñu borom subhanahu wa taala jox nañu programme yar jox ñu projet de société. bu yéeme sax boo demee ci suratul luqmaan xoolal luqmaanul xakim la mu wa iz qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizuhu yaa bunayya laa tushrik billah fa la ko tàmmali yare mm. yar ci digganteem ak boroomam naka la war a comporter ak boroomam ne ko yow yow doom doom booy laa tushrik billaah bul bokkaale yàlla maanaam aqu yàlla yi mu moom na nga ko ko jox ko mm. xañ inna shirka la zulmun azim mm-hmm. wa wassayna al insaana bi waalidayhi gis nga ñëw pare na mm-hmm. digganteem ak boroomam léegi nag indi na digganteem moom ak ay waajuram ndey ji bàyyi ji mm-hmm. pare foofu ñëw na digganteem ak boppam ñëw digganteem ak ñi mu nekkal société bi laa tam si fil ardi maraxan ak yooyu yëpp mm-hmm. gis nga te xoolal xoolal xoolal programme bi ñuy alxuraan jox ci yar nit ki soo ko xañee borom bi subhaanahu rek dootoo ko jëriñoo mukk moo tax dañuy ne parent bi pour mu réussir ci yaram mu jëriñoo njabootam day jël njaboot di jox yàlla su ko joxee yàlla rek njaboot ji bu demee ba màgg nag yàlla delloo ko njaboot jooju loolay waral gis nga ñu bari tey dañuy sonn seen doom mooy yefal boobu nga doon wax mooy mm-hmm. nañ ko fexe dugal ko école boo xam ne ordinaire muy fay lu cher moo ngoog toog ci ay table banc sol ay yére yoo xam ne macha allah ay kat-kat ñoo leen di yóbbu indi leen xam nga utal leen ay professeurs yu baax a baax a baax mm-hmm. mais objectif bi mooy nañu am diplôme nañu am titre nañu am ay lijaasa ëllëg ñu occuper poste yi gën a mag ci biir réew mi wala ci àddina bi ñi am salaire yu baax am tur am daraja am ndombay tànk mais fàtte nañu ne ki nga xam ne moom mooy joxe loolu te mu jaar yoon mooy borom subhaanahu wa taala léegi bu ko defee nag noonu la ñuy continuer bu ñu demee ba toll étape boobu nag moom. Mm-hmm. mooy que ne ñoom dañuy bëgg dund àddina parce que àddina lañ leen jàngal. boobaa nag parent yi nga xam ne dañ la ñuy xañ si ni ñuy gisee ne dund àddina boobu happiness boobu dañ la ñuy berfale ñu yóbbu leen ñi ñuy wax xaw maison de la retraite ak mel noonu moom day bu ma bu màggee day fexe nu muy débracé woo ci yow <laughs> pour mun a dund te yow da nga doon sonn pour moom mu dund jëriñu mu doon quelque lislaam l'islam nag contraire bi lay def mm-hmm. mooy da yar ba pare boo demee ba jekku àddina nag mooy la ah wa wassayna al insaana ci loolu la lay yar bàyyil xel sa bàyyi ji bàyyil xel sa ndey ji ni bàyyil xel mag ni bàyyil xel kilifa yi euh, damay joxe benn exemple bu boo xam ne bu yéeme ci mm-hmm. wàll boobu dafa am benn waajoo xam ne euh, baay ji da koo yar ci façon yarin yi nga xam ne yaruñu jamono <laughs> mu jàng ba am ay lijaas yi kawe dem Europe jàngi ba ñëw ba mu ñëwee nag baay ji moo ko fataat ci këram kër hmm. macha allah parce que baay dafa am alal léegi nag mu dëkk ci apartement bu extraordinaire baay ji dëkk ci suuf léegi mu am ay invité yoo xam ne dañuy jóge bitim réew réew ñëw ñëw seet si ko ñëw ganal si ko mais buggul gan yi fekk fa pàpp ci ah buggu ko papa ji màgget la xam nga màggetu sénégalais te am nu muy mel <laughs> waaw yére yi ñuy sol ak ni ñuy solo ñu yenn saa ñun jeunesse si dañuy bëgg a paa yi mel ni comme ñoom dañ koy bëggee mm. waa sol yenn yére yéeg am yenn façon présentation donc bi loolu amee nag mu bëgg a évacuer paa bi génnee ko yóbbu ko feneen pour gan yi bañ ko fekk ñett fan la waroon am ci kër gi mu woo benn médecin waxtaan ak mu ne ko da may wool may indi sama papa bu ñëwee nga consulter ma ko pour téyel ma ko pour une semaine mu ne ko amul problème bi mu demee nag ki ma koy wan médecin la moo may expliquer li loo ne bu siiw la réew mi am na ko xam bari bari donc bi mu agsee mu xool ko diagnostiqué après mu ne mais góor gi amul problème góor gi moo la gën a wér sax yow mi mu ne ko noonu téel ma ko foofu rek pour mu noppalu mu ne mais xanaa kay su ma koy téye ngir ab motif mu ne ko noo téel ma ko foofu rek médecin bi ne ko moom amul raison bu tax mu mën a téye góor gi ndax góor gi moo leen gën a wér ñoom seen jëm bopp lépp ma normal mu daal di koy woo ci suuf bu ñëwee mu ne mu jox ko téeméeri junne 500000 mu ne ko seetaade xam nga ne dama am gan yu bëgg ñëw ci kër gi bëgguma ñu fekk fi góor gi ma bëggoon na teel ma ko fi quelque temps nangam nangam donc lii la alquranul karim wuuteeg yar yi nga xam ne ñun loolu la ñuy yaree ci jamono jii maanaam moom day yar doomu aadama mu ñit nekk ñit ba pare ñite ànd ak ñiteem mm-hmm. kon moo tax alquran moo ñu jox projet de maanaam euh, société projet société boo xam ne buñ ko buñ ko respecté woon ñu daal di kay def système boobaa nag mun nañu génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am jamono. est-ce que imam ah alxuraan de yaram yéeme na lool. te neex ndaxte euh, mhm. maanaam jàng école bi ni mu méttee. Mhm. nga xamante ne daanaka vingt ans rek da nga koy consacré wu sa mhm. doom nga ko ciy fayal yooyu noonu léegi mu ñëw bëgg laa teg loolu am ci yow kersa présenté la ay xaritam loolu day xaw a yéeme kon nag maanaam imam yar dafa nekk loo xamante ne c'est primaire primordial am na xadis yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon wax akrimu awlaadakum wa aksinu aadabakum fa in awlaadukum hadiyatu ilaykum seen doom yi yéen wayjur seen doom ay cadeau kon nag wayjur rikk waaye nañu jéem a xoolaat seen toogaay donte instant bi jot yombul waaye ku bañ sa doom abandonné la wala am kersa kon yeboo nga dellu ci yar bi nga xamante ni moo am sëñ Mbay Jaxate daan na wax itam ku yaru rek a mat a am ku yaru rek a mat a xam ku yarul matula am matula xam turam wa sax nga xamante ne kon ki nga xamante ne amul yar kooku amul benn considération bu koy jox ci société bi nga xam ne kon imam yar yéeme na yar yéeme na am nga yeneen sallallahu alayhi dafay wax sax mooy damay dama koy sof si li nga doon wax léegi mu ne parent joxul doomam kaddu bu gën a rëy yar ko yar bu rafet hmm. nee na sa doom boo ko yaree yar mu rafet hmm. même boo ko bàyyilul fifteen sax day mën a demal boppam hmm. waaye nag boo ko bàyyilee àddina li ci biir te joxoo yar mu rafet moom yar bu baax moom ah du ko jëriñoo ci àddina euh, beneen bi moom may gis nga wàllu yar dafa am solo nit ñàkk xam-xam sax am yar moo gën mu am xam-xam te amul yar waaw moo tax yeneen ti boo xoolee dañ koo defar ba pare yàlla defar ko addabani rabbi fa ahsana bi doog ko jox xam-xam doog ko yónni euh, tey jii ni missionnaire yi ngay gis ci àddina bi am na fu ñuy jaar mm. jaar bu ñuy wax enseignement euh, soo ko tuddee rek ñu tudd la éducation mm. ah ministère de l' enseignement et l'éducation moom ko donc ñoom ñaar dañuy ànd mm-hmm. nga nekk tout tànk ñu lay yar di la jàngal di la jàngal di la yar di la orienté bul def nii defal nii ba nga dem ba ñu jox la lijaasa ñu yóbbu la ci université tàggat la mm-hmm. doog laa jox post dox laa fal nangam doog laa kii kon yar dafay jiitu mm-hmm. dafa di loo xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama parce que su ko doomu aadama ñàkkee rek ñàkk na lépp. Mhm. parce que ñit moom doon ñit ñite moom moo ko gën. Euh, dafa am euh, benn borom xam-xam bi ñuy wax docteur Yusuful Qaradawi euh, dafay wax ne mu ne innal xadaara al garbiya qad istataat mu ne maanaam civilisation occidentale bi mu ne dafa fexe na ba def doomu aadama muy naaw si jaww ji fu ko neex. ba pare di circuler ci océan bi fu ko neex di sax circuler ci suufu géej profond de la mer nu ko nu mu ko neexee. mu ne waaye am na lu gën a yomb loo xamante ni mënoon na ko mën waaye moo ko të hmm. mooy fexe ba doomu aadama dox ci kaw suuf ànd ak ñitéem ne loolu moo të doom maanaam tey xadaral xarbiya ñoom doomu aadama def nañ ko muy naaw ci ci ci ci ci ci ci asamaan si avion yi da ngay dugg di lekk di naan di noppalu di kii ba àgg amu benn problème kon loolu effort boobu ñu def xam nga xam nga dafa bari ba hmm. dafa énorme hmm. Euh, gaal yi tamit aussi croisières yi gis nga nu ñu mel. Mhm. réussir nañ ci. biir géej gi tam muy sous yi réussir nañ ci. waaye doomu aadama dox rek nii buy dox nga gis ko ak comportement am nga xam ne kii nit la nit ku ñite la loolu moo jafe. te loolu mooy li ñu war a gën a kii parce que am na benn boroom xam-xam bi mu ne to build a nation you have to build the community because the community are the nation. mu ne pour tabax ab nation da ngay tabax community maanaam nit ñi ngay defar. Mm-hmm. nit ñi boo leen defaree rek am nga dëkk bu baax. Mm-hmm. kon moo tax même Amadou Hampâté Bâ daan na wax yi mel noonu di ko développer lu bari nga xam ci wàllu éducation moom yàlla mayoon na ko ci te wax na ci lu mm-hmm. bari bind na ci lu bari. kon de yar sooxe na. lool ndaxte suñu xoolee maanaam suñu ndaw tey mhm. bi nga xamante ne état décrété na couvre-feu mhm. seen réaction nga xamante ne suñu jëlee comme exemple ndaw Médina mhm. génn taal toj bus yi ak Sicap Mbao maanaam comportement boobu nga xam ndaw yi nga xaman ne ñooy maanaam ëllëgu réew mi bi ñu comprendre du yàq bien biens ndaxte bus Dakar Dem Dikk yi ñun ñoo ko moom suñu bopp suñu patrimoine la kon loolu noonu ban jàngat nga ci am. waa jàngat ma ci am il ñu dellu ginnaaw dellu ginnaaw moom la ñi dellu ci cosaan ba ci parents yi. parce que yeneen bi salaa sallam mu lu mu wax rek mooy dëgg nee na kullu mawludin yuladu alal fitra fa mm-hmm. abawaahu mu daal di koy continuer képp ku juddu la dafay juddu ànd ak néyitamaa day set wecc feuille blanche la bu la yàlla jox mm-hmm. waaw doom feuille blanche bu set wecc bu bees tàkk boo xam ne bu vierge amul dara luñ ci def bu la yàlla jox léegi na yow parent bi yaa ciy def la nga ciy def yaa ciy bind lu la neex yaa koy remplir lu la neex léegi nag jox nañ la doom yar ko ban yarin nga nga koy yar ban programme nga koy jox donc hmm. fa la ñuy njëkkee suivi beneen bi moom mooy lieu yi nga xam ne fa la ñuy euh, tàggatee doomu aadama moo xam école yi moo xam daara yi la moo xam bu mun a doon léegi les temple de savoir dañoo génnee li ñuy wax éducation ci seen jàngale nañu jàngal nit ki mu xam mais duñ ko yar bu njëkk gis nga mag ñi nuñ daan yare hmm. bu dee daara bu dee mbedd mi bu dee kër yi bu dee fépp da ngay génn nga gis xale mu def naka su dul noonu nga teg ko ci yoon mu jar sax nga dóor ko boo ko dóoree ba pare bu demee këram parents yi xam ne dañ koo dóor ci mbedd bi du jéem a xam sax lan la de dañ koy dóoraat ñun ñëpp jaar nañ ci te ñun duñu ay mag buñ la dóoree ci mbedd bi ñeme woo dem ci kër sa kër nga dañ laa dóor dañuy xam ne dangaa deful yoon moo tax loolu soo ko defee tey ñu porté la plainte de tey jii ni waxuma la ci mbedd de mais kii jàngal xale sax nga dóor ko sax parent mm-hmm. am porté le plainte. est léegi xale boobu ëllëg bu tojee bus du berti kenn. Mm-hmm. ëllëg bu Macky Sall président de la république waxee nañu def ndànk leen lañ def ndàngam moom mu génn sànni ay xeer wala lakk ay pono. bu mu mm-hmm. berti kenn parce que ci éducation boobaa nag responsabilité partagée lay doon. ci parent yi ak état bi. ci parent yi mooy naka lañ yaree xale état bi ak ban ban éducation lañ ñuy jox. lañ jox xale yi ba xale yi mel ni tey jii. Mm. parce que imagine ku nekk université di jàng kooku vraiment dafa war a nekk koo xam ne day am maanaam maturité bu extraordinaire. Mm. parce que xam-xam bi muy incarné moo tax. Mm. waaye imagine koo xam ne bu meree la mu moom nga xam ne bokk ka kenn moom lay yàq te ka tax nga koy yàq nga mere moom mi ngi ci ay kat kat yoo xam ne kenn du leen gis. Mm-hmm. du tardé fenn embouteillage du ko du ñàkk lu mu lekk du am benn problème du am problème déplacement mais yow pour nga déplacé wu ci car rapide yi njaga njaay yi taxi yi bus yi ngay dugg léegi boo meree yooyu ngay lakk da nga gis ñi lakk car gis nañ ko fi. Mm-hmm, lakk njaga njaay gis nañ ko fi. Mm-hmm. ñi lakk bus Dakar dem dik loo xam ne ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. suñu alal la. parce que loolu yëpp éducation bi moom moo moom moo raté. te loolu day delluwaat comme ni ma ko waxee ci parent yi ak ci li nga xam ne ñoom ñoo jiite réew ñu muy état yi kon il faut que ñu xool ban éducation. ban programme la ñuy jox suñu ndaw yi imaam kon suñu leen déggee maanaam parents yi dañoo war xoolaat seen toogaay mhm. ci njaboot gi nga xamante ne tey bu njëkk soxna moo doon toog ci kër tey nag comme que neemu nañ parité ak émancipation de la femme ñun dañuy xëy nga xamante ne euh, wàllu bi nga waroon a yor xale bi nunu bi nga koy jox kooku noonu tey xamoo maanaam nan lan la yaroo ak nu muy téye sa doom mhm. papa ji moom waxi nopp kooku moom léeg-léeg sax mu ñëw 22h du gis njaboot gi daanaka kon kooku noonu dafa waaye jur yi ñaan ñëpp dañoo war a xoolaat kon seen toogaay comme que sa biir wax ne nga maanaam njaboot gi ay cadeau lañ mhm. cadeau nag kuñ ko jox danga koy fonk man de cadeau duma ko joxaat kenn dama koy téye <laughs> samay fukki loxo kon nag jur yi war nañoo xoolaat seen toogaay baax baax nga xamante ni donte léeg-léeg nga yar sa doom sax mu génn société bi yàqal la ko waaye tamit ce sont les méfaits de mënoo ci dara kon état bi tamit maanaam programme national de l' éducation dañ cee war a bàyyi xel nga xam ne ndaw ñi ñun mënuñoo defar réew kese te amuñu yar nit su amee yar yaa ko sànq sa biir wax fu mu dem rek ñu teg ko maanaam tey nit dina yaru ba mu jaaxal la nga yàgg ab xaafis la fekk ah sax mënu ko mhm. mais yaram moo baax fu mu dem rek dañ koy jox cër jox ko gëddëm nga xamante ne dañ koy jiital fu mu mënti dem kon nag jot nañu xoolaat suñu programme national bi nga xamante ne moo ñu yar ñuñ nga xamante bi nga privé 6 ans ngay def primaire 4 ans secondaire lycée ñëw nga nar cee yokk université kooku noonu soo amul yar maanaam tey nooy mën a gérer li ngay amaat koom-koom bi nga ciy amaat sax doo ko mën a gérer ndax dangay jàppan maanaam dund gi yëpp rek ay caaxaan la imaam loo xalaat ci loolu. waa xam nga éducation dafa am solo sànq danga am benn point boo laalaale mooy jigéen bi waroon a yar sax génn na léegi uti mbedd mi. lu am solo la xam nga am na benn euh, bindkat bi wax l'émancipation de de la femme mhm. waa muy waxee mu ne dafa bokk ci l'une des nouvelles ordres mondial mhm. la bokk mu ne pour leurrer la les les les femmes mhm. waaw donc euh, Muhammad bu benn borom xam-xam moom itam da daan wax mu ne axrajaha min al bayti fa jaalaha tastaxilu bil amali wal tijaara wal nangam <laughs> wag Euh, fexe nañ ba génnee jigéen ndax ko génne ko ci kër gi hmm. ci ay euh, maanaa ay dige yoo xam ne benn nekku ci loo xam ne lu logique la wala lu tegu ci raison la mais objectif bi mooy ndax ko génne ko ba pare jox ko doole boo xamante ni day tax ba éducation dootul am parce que ki waroon toog ci kër gi yar njaboot ji alxuraan dafa ne góor na génn wuti hmm. falaa yuxri falaa yaxru yuxrijannakuma minal jannati fatashqa yow ku góor gi hmm. léegi nag ñun nag ñaar yëpp la ñu boole léegi <laughs> inna saayakum la shatta xam nga yàlla fa ne wa maa xalaqa dakara wal untha ne mm-hmm. mu ne inna saayakum la shatta yow ku jigéen ki sa programme ak man wuute na man sama programme yow wuute na ku nekk nag am na programme bu mu war a respecté waaye mun nañoo bokk yenn programme yi mm-hmm. donc loolu dafa bokk si li ñu gën a sonal tey nga xam ne tey jii ni yar bi parents yi comme ni ma ko waxee buñ nee parent yi ki ñu ci gën a jublu aussi moom mooy ki nga xam ne moom mooy yaay ji nga xam ne moom moo war a taxawu doom ji xool lan la bëgg mhm. doomam men ëllëg mhm. nan la lislaam bëgg doomam men nan la boromam bëgg mu men mhm. nan la war a men pour jëriñ réewam parce que dëkk ci réew mi jëriñ réew mi moo ko gën bokk nañ ci ñu bari ñoo xam maanaam cest à ñoo ñu bari fii ñu ngi dëkk ci réew mi yore national sénégalais mais est-ce que jëriñ ñi ngi réew mi réew mi jëriwuñ ci ñoom mais dañuy sonal tardé réew mi te loolu yépp ci yar bu baax ak programme bu baax ak système bu baax mooñ ci mën a génne mhm. ah imam macha allah waxtaan bi am na solo lool mhm. dafa mel ni suñu technicien mu ñuy kii signaler waxtu bi ñu bëggoon ngeen joxe seen kàddu dernier kàddu waa macha allah waa dernier kàddu mais du dernier kàddu ndax émission bi incha allah <laughs> seen émission la ñoo ko bokk incha allah <laughs> di la jaajëfal bu baax di encourager mhm. di ñaan borom subhanahu wa rek li ñu euh, tàmbali nii mu àgg si jàmm te yàlla def si barke suñu jublu waaye nekkul lenn rek lu dul rek euh, réew mi jëm kanam rek mhm. suñu ne réew mi jëm kanam moom mooy que ne li mu laaj rek ñu joxe ko mhm. kenn ku ne da nga am benn participation boo si def rek boo xam ne day tax yow tamit nga sentir sa bopp ne man it am naa lu ma def ndax benn boroom xam-xam loolu lay wax rek mu ne nii if I cannot do a big things in the big way I can do small things in a great way maanaam su ma mënul def lu rëy ci yoon bu rëy naa fexe ba def benn mbir bu ndaw sax boo xam ne benn pas dinaa ko marqué ma xam ne ma it lii moom def naa ko ci tool bi. Mm-hmm. donc loolu mooy suñu taxawaay rek di ñaan borom subhanahu wa mooy ñu dégg ak topp. amiin jërëjëf suñu imam plus bi kii moom imam plus <laughs> <laughs> na moom ute naag sama sama baay ji di di dénkaat ndaw ñi rek li nga xamante ne Serigne Touba waxoon na ko radiyallahu anhu mu ne su la say wajur yarul. àddina yar la ko àddina yarul bàmmeel yar la yal nañ ci yàlla musal di jaajëfal ñi nga xamante ne depuis bi ñu gisee bande annonce ba tey ñu ngi ñuy woo Baye Fall oustaz Alioune Sall rek yaay fa chaque jour rek ñu woon di laaj kañ kañ la ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax di ci jaajëfal suñu baay Serigne Mo sekk di leen ziyaara li jub ci kàddu gi ci suñu borom la lu ci jubut ci du moom ci ñun ñi la ñu ngi ciy jéggalu mbokk yëpp di leen jox digg daje ëllëg incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun TV tabarakallahu ñu ñëw wax leen rek wala yokkar leen ñi nga xam ne da bëgg bokk ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné da ci cloche bi maanaam fi ngeen di bës seen loxo su ngeen bi noppi daal di def j'aime te bu leen fàtte nag commentaire yi ndax am na ci solo bu ko defe nu ànd ngeen ci liggéey bi ko defee abonnement yi gën a bari àdduna si yëpp ànd ceeg ñun loolu mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen te sàmm salaamaaleykum wa rahmatulah